xam ngeen ni luy lor réew mi du jóge ci xataram luy lor réew mi du jóge ci ay tektalam luy lor réew mi du jóge ci njàngale nañu ko xam léegi dafa am benn journaliste bu ñëw laaj waaw yéen a ngi jëm ci waaw poroxaan jeeg ziar général jeeg waaw ñu doon laaj est-ce que laajul ngeen fomm ko ko bu ngeen ko fommee virus bi dal Sénégal yëpp an ko bu ngeen koy fomm virus bi dana dal Sénégal yëpp bu ngeen ko bàyyee nag ca bis ba ñu ziar mag ñi déer leen sunu jaaxle bu nu fa jógee dana dellu gannaaw di dellu gannaaw ba topp Afrique ba topp adduna bi man Moustapha maa ko